d'abord wa salum TV ma ngi leni di nuyu di len sant di len gërëm di lu sen teewaay fi xam nga marche mom droit la ci rew kep ku bëgg marche am nga droit nga marche euh, wax li nga xamne motax ngay marche ku nek am ci droit donc ñun loolu mënuñu koo mënuñu ko qualifier dara mais nak mën nañ ci am jangat bu marche amee ñu xool déglu xam marche bi lan moo ko wundu ak lu ko waral mais marche bi ñu gis du marche bu waa Kër Massar di def ndax xam naa ne duñ la tabaxal autopont nga ne da ngay marche ndax bëggoo autopont ndax Kër masaa ni mu xatee adduna bi yëpp xam nañ ko kon su suñuy def autopont pour dem ak dikk mën a yomb yaakaar naa ne loolu kenn du ko bañ beneen bi si des mooy suñu leen dañuy marche ne dañuy marche pour occupation anarchique occupation anarchique mairie bi toujours mom lay xex bu yagul gis ngeen fi li fi li fi maire bi xex ci occupation anarchique ba ay ambulant ñëw tal maire bi ñi di marche tay dama xam len bu baax nak ku ci ne ma xam parti ba nga bok motax ma qualifier ne sen marche bi du marche wa keur mazar marche politique la rek affaire politique politicien la man ay mécontent politicien yu opposition toute l'opposition de Kër réunie avec les mécontents qui sont dans l'APR notre parti ñoom ñoo àndandoo booloo di marche mais cette marche là si vous xoolee comparé ko les 700 millions de Kër Massar une yu nekk ci biir kër yi nga xam il faut nga analyser Wa Kër Massar bu ñu génnee yaakaar du plus nak ñinga nga xam ne Massar ñu gis leen fi xam leen bu baax ñu ñëw fi ñu bolo ñi def sen marche marche bi fan la neexee woon mooy ba maire di xeex occupation anarchique ñu ñëw ànd ak maire jàppale ko ba ko maire di xeex dañoo toog ñu dem lakk maire bi ñu toog marche ñu tey jii ñuy defar dëkk bi xat ñu ne maire tereel occupation anarchique bi maire ne du def loolu liggéey kuy def am let toj nan comme yaakaar na ñi ngi defar pont bi nag il faut que fi day xat léegi nak suñu bëggé né na xeex occupation anarchique bi ci moment bi ñu defar pont bi ci moment bi ñu joggé ci Covid 19 nga xam ne jaaykat yeeg ñepp président ci bopam defe né nañu yolomal bayyi nit ñi ñu jaay touti nak ndax tejj bi metti na ci ñom ci Covid 19 bi am ñom ñu bëgg ma imposer dama naan ñi samay opposants yi lañ yo xamné dañ ma bëgg duggal ci guutama bañ ñu jóg di marche ne loolu ñu wax force ma def ko duma ko def. dañuy sonal seen bopp ku leen neexee ñu marche junniy marche mais man président mooy sama leader lu mu wax rek loolu lay def nañ yolomal yolomal nañ tey circulation bi mi ngi am normal voie publique yi bàyyi nañ ko nit ñi ñi ngi jaay nag dama leen di bàyyi ñu jaay luñ fi mënti wax du tax man ma def la ñu wax ndax su doon ne jamono bañ koy waree tere ci Covid 19. préfet jël dogal ñu tere ko ma ànd ak gendarmerie di ko appliquer di di xeex ak ambulants yi di xeex ak commerçant yi ba ñu taal mairie bi jamono boobu ñu ngi woon sama ginnaaw kon tey suñu waxee ne loolu la ñuy xeex dinaa ko gëm waaye du ñu bàyyi ba projet ñëw ñu ne ma nag maire dindiwaatal ñii nga dindi woon ñu taal mairie bi ma ne ñii dañoo bëgg ma dindi ko pour leneen xew surtout ci moment bi nga xam ne nag président li mu wax moo tax du ma ko dindi l'essentiel danaa fa teg sama équipe équipe baa ngi fa chaque jour boo xoolee équipe municipale baa nga fa service technique ku lal ci mbedd ñu ne la teggil nañ ñi di jàll ñuy contrôler circulation bi loolu moom danaa ko def mais nag dindi leen garage yi jóge leen fi commerçant yi jóge leen fi foire bi dañal nangam nangam loolu ñu wax yëpp duma ko def jarul sax son waaw.